kon dañuy jëfandikoo rek ndigal li sëriñ bi ndax laa tafaalu say an bi xayril isn fal isnu sartun fi xabuli sha'ni loolu rek moo tax ñuy wax ak seede ndax mbir mu ne ka ko fekke moo ko mën a wax ka ko dundit moo ko mën a wax lu wax ji bari bari moom ñu bari mën nañ wax waaye ki nga xam ni da koo da koo fekke bañ koy sos la ci ëpp fekke ko it <coughs> ñu dund ko lu bari jaar ci loxoom ñuy ay jokkale yu am solo jaar ci suñu diggante kooku bu seedee war naa nekk dëgg ndax lu mu fekkee lay doon ndax loolu lu am solo kon maa ngi seede ci suñu borom mi nga xam ni di ko seedeloo ñii fi teew ñëpp sëriñ Cheikh bi ñëw ngeen ci kër goo xam ni ku soppoon président la ku ko jàppale ci saaxir ak ci baatin li ci gën a yéeme sax keroog bi mu xew-xew bi amee dafa fekk muy def waxtaanam woowu pale ma bind ko message ci whatsapp am matul cinq minutes mu génnee pale ànd ak soxnaam jëm ci kër gi ci la ma woo ci oto bi ni ma ah sunu bàyyi sëñ bii li nga wax day na waar lool di ndax boo xoolee waxtu woowu lay doon ci lañ ko waroon di waajal ni ma damay dem Abuja suba waaye dinaa fi yebal délégation lu ko jiitu alxames bi toog nañ buroom maa ngi moom ñu waxtaan ma ne ko sëriñ bi mu ngi ci hôpital bi mu ne ma xanaa tànk yi moo ko moo ko moo ko moo ko jàpp ndax xamoon na digganteem ak tànk yi daan nañ jokkoo bu baax baax lu jiitu loo rek alxames bi 2000 2006 2008 ndax am na loo xam ni lu ñuy wax la am ñu ko jot waaye damay seede rek am ñu ko war a xam am ñoo xam ni du du waxi piti waaye 2000 bi ñu yàlla dogalee 2008 mu muy bëgg a jël réew mi mën naa ni génn bu am solo bi mu njëkk a génn. jenn lagan la bisu àjjuma ma ak moom euh, ma ma Pape Samba nga ca woon Mahmoud Saleh ak mbay njaay ñu jaar ci far ba ñu jaar Gossas muy génn bi njëkk jour boobu sax dañoo dañoo téye woon passeport ci dadul waxi léegi ndax kenn du yee fitna waaye ci tënk euh, bi ñuy dem boobu amoon nañ njàqare te moo ma woo ci néegam këram mer muus ni ma ah lii a xew na ma ne ko fenn da laa xam ni soo fa demee am naa yaakaar ni li nga bëgg dañ ko am man moom mënuma ko xam sama xarit la te wax na ma ko ma woo sëñ bi mu daal di ci bëgg lool ni ma nañ ñëw bi ñëwee yaakaar naa fekk na fa sëñ Sidi sëñ Cheikh sëñ Gasaaka mi ñu bari ñu ngi fi ñu ko fekke bañ demee xéewal yañ ñu defal bi ñuy dem teraanga jañ jañ jañ ja ko président jox mun ta fay benn bool bi xéewal yañ fa joxe maanaam li président joxe ci xaalis ci waxin li ñu sëriñ bi defal ci teraanga benn bool bi rek mënu koo fay kon booba ñu ngi ci njàqare dëgg ma ànd ak moom dugg fi Cheikh Issa wàcceeb liggéey ca néeg boobu ma ne ko tàllalal say loxo keroog salaatu tasbih laa ko jàngal foofu man maa ko jàng ci kanamu fi Cheikh Issa jóge ñu génn dugg ci sëñ bi waaye foofu moo lu am solo lu sëñ bi def loo xam ni lu kii maanee ngi foofu bariwul xaw ma waaye biñ duggee am na soxna suñu wax soxna njenne gay mi ngi ci néeg bi maa ngi moom ci biir néeg bi mu génne lu mu takkoon sëñ bi moo tekki lu mu takkoon wallaahi lancim mu nekk ab lu mu takkoon mu ne ko lii maa ngi la koy jox waaye maa ngi lay xamal ni boo faatuwul boo faatuwul li ngay wut lépp di ko am mun naa de mënu ko sax doo dee ci oto sëñ bi ci teg lool ni ko bal du la rey balu fetal du la rey oto du la du fi rey lu la fiy faat rek ci coobare suñ borom lay doon loolu man fekkee naa kon maa ngi koy seedee ni kilifa gu ko jàppale woon dañul di ko jàppale te doylu sëñ Abdu ku doylu la waaw nit ku doylu xam nga foofu mu jaar yëpp ndax Sénégal moom mën a mën a ji daa bari ku ne dana day fëggub dënnam ni mën a waaye lii moom dund naa ak moom te man mi ma ko wax moom xam na ko sëriñ bi xam na ko audience bi mu ko njëkk a mayit njabootam a ngi nii toog 2013 la woon keroog ñaan na ko loo xam ni 2012 ba tey gisuma kilifa gu mu ko defal lim boobu mu ko ñaanoon ci ay lu mu ko waroon defal ci ay képp bi mu duggee ci biir moo soxna mii mii ñuy waxtaan dañu ko ah lii da bari na waaye de sama bàyyi di sama kilifa sañu ma koo bañ gisuma keneen keneen ku mu ko defal kon maa ngi seede ni Serigne Cheikh Abdou kilifa gu baax dem na kilifa gu doylu dem na kilifa gu ko jàppalee dem na kilifa goo xam ne ku bëggoon président la du wax mukk mukk mukk te déglu ko message bi ma ko yónnee loolu laa ci bind dama ko fàttali président man maa ko yónnee message ni ko sa baay dem na sa xarit dem na maa ngi lay fàttali nag ndax nit des koy fàttali guddi gañ ànde woon njenne kooku moo dem kala doon jàppale ci xaaxir ak ci baatin moo làqu tey di sa baay noonu laa ko ko waxee kon xam na looloo tax ca saase rek mu daal di may woo kon nee na mi ngi leen di jaal di ci des sëñ Cheikh Abdou dana ko jot li ku ko yitteel la bi ma nekkee fii soo ba tey di wax téléphone général bi ma doon woo directeur de cabinet ñuy xool ndax maanaam waxtu wi ak kon ñor gum leen ñor kon kooku moo dem sëñ Cheikh Abdou xamal ni njaboot gaa ngi nii ñu doylu lañ ñu baax lañ ndax njëriñ amuñu li xew nekkuñu ci mooy ku am noon loola naqari rek wax ñoom dañoo doylu ndax ndax li ma wax ñoom ñoom dañuy jàpp ndax sëñ ëpp li mu defal président soo xooloon su ko su fekkoonte ni wax daa jar mu wax wala ñeneen ñi noonu ñuy yëngoo kenn du ko gën a dégg mu wax ndax lii dund naa ko ak moom fekkee naa ko ak moom te xam naa ko te du wax du jàmbat du jëf kon ñu ngi ñaan ci barkeb seex isaa yàlla na ko yàlla fay ñun nag sëriñ Cheikh Abdou ñu ngi lay seedeel ni ñu ngi lay seedeel ni it sunu xarit la mooy si sunu bàyyi la sunu xarit la sunu bàyyi la sunu xarit la yërmande jëm amoon ci ñun amu ko ci njabootam gi waaw loolu maa ngi la koy seeral baax donc kilif yërmande ji mu amoon ci ñun amu ko ci njabootam gi lim seqoon ak ñu nit gëm naa ni lu ci baree baree baree bari ñoom sañ sii di nag dinañ ko mën a nangu daan amoon naa cër boo xam ne ci moom daal wàccuwaay fa la yam mooy ci dem kon sama ñaari xarit daal su ma waxalee ak sama baay ak sama xarit bi ci mujj mooy jël nag cër bu am solo te mooy doomam bàyyi la moom te du bàyyi la ci man du sama nawle bon waaye kon kon kon ñi ngi sant di la xamal ni kilifa gu baax kilifa gu daal fu ñu mën a dem daal ci ci ci dëkk bi ndax du ñuy wax du ñu jàmbat du ñu def waaye luñ mën a def lu ñu war a mën a defal ak luñ ko war a mën a jàppale ak ñu ko war a mën a taxaw yelloo na ko ndax jëfam la moom xaarul bañ ni son excellence bi mu koy bi mu koy bëgg di ko jàpp booba président déggul lool wax naa la génn bi njëkk ci génnam ci jafe-jafeem njenn la ko defee te yaakaar ju réy la woon te loolu di ko fàtte wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu maa ngi maa maa ngi maa ngi lay seedal nit commissaire macha allah bi bi keroog bi xew-xew bi amee. bi ko kilifaam di woo mooy yàgg. da fekk ba président di ma woo. da koo daal di jox ndigal boobu ba nëgë ni macha allah police yëpp jàmbaar lañ sécurité bi yëpp loolu ñu ngi la koy seedal baax Cheikh Ibrahima fa Lamp moom day na këram la ñëw. gouverneur bu ñu nee maam lamp rek <laughs> nga ñëw njënd ka Cheikh Ibra loolu doy na sëkk ab taxawaay jërëjëf jërëjëf jërëjëf. ñu ngi lay ñu ngi lay nuyu nuyoo bu sel di ko jàllale ci mbooleem njabootu Sëñ Lat fi gépp te ñuy sunu ay bokk di sunu ay xarit di nuyu Sëñ Abdou Samad mi nga dendal te moom itam ñu xam li mu doon ci kër gi ndax mën naa ne yow mi ci moom laa la xamee ci kër maam xarit boobu yàgg na mën na ñeent fukki at di nuyu sëñ Fallou mi ak si léegi di ko ziyaar moom itam Mor lim na délégation bi ñu may ma rek mu tuddaat ci gouverneur ak ñi nga xam ne ñoom la àndal muy préfet ak sous-préfet ak commissaire ak mbooleem ñi nga xamante ne bi ñooy njabootu président ci dëkk bi di ko jàppale ñu dikk nag fekk fi xaritu benn bakkanam di doomi sëñ bi di xaritam te ñu ne bu ngeen demee na ngeen jaar ca moom moo tax bi ñu dikkee ñu doxale nii te lim fi wax pour woon moom mën a ko wax te foog naa li mu wax doy na sëkk ndax fekk na dem fekk na tey kon ñu ngi leen jot li njaalum président la république bu ñu dee njaalum président mooy njaalum réew mi yëpp ndax tey moom la yàlla teg ci bopp réew mi mu ñàkk xaritam ñàkk woy waajuram waaye li mu gën a ñàkk mooy kilifa goo xam ne dafa doonoon kiiraay ci senegal ndax tey senegal gépp ñoo ko ñàkk mu mel ne kenn bu rëy moo fàq ci réew mi kenn boo xam ne ci ñi nga xam ne seeni ñaan bokk na ci jàmm ji nga xam ne moo am ci réew mi waxtu wu ñu demee bay tiit rek sunu borom defal ñu xéewal ba lépp teguwaat fa nga xamante ne bi waru foon a jóge mukk ñu ko daan fekk fii ci ay yónnanti président daan waxtaan ak moom waaye li baatin bi rëy rëy rëy te sëñ Matar ñëw ci léegi bu ngeen waxee bu waxee yow ci wàllu xalaatu àdduna wàllu xel da nga yéemu ci yàlla danga nga naan sëñ bi naka la xamee ni ci mag moo xam ne am na juróom-ñeent fukki loolu fii ba tey lim lay digal lim lay conseiller fi muy jaar ak yow ak fi nga xam ne fa la ñu war a doxale réew mi kenn ëpp ko ci woon xalaat ak xam-xam kon dafa mel ne kooku moo dem mu nekkoon nag surtout ki nga xam ne moo fi teguloon Cheikh Issa Diène te Cheikh Issa di kenn ci Serigne Touba sunu boroom boole ko ak sëñ bi lu jiitu ak gane àddunaam ndax nee nañu ka nga xamante ni moo doon jàngal way juróom moo ko ko tegtaloon te boobu Cheikh Issa ganegul àdduna kon loolu yàgg na jiitu na mu am ci Sëñ Tuubaa loo xam ne ñoo ko ci am itam bariwut mën nañ ko tudd rek jumaay njaareem ñi nga xamante ne bii moom la ko sëñ bi tegoon ci loxoom ne ko yàlla ak yonent bi ñool dafa jëwriñ kon sa jumaa mi ngi noonu ba tey jii loolee mooy la ñuy wéyal kon da te booba mën nañ ne jumaa ji mbooleem li Afrique amu fi kon foog naa ab cër munta gën a rëy boobu cër boo xam ne Sëriñ Tuubaa joxoon na ko Cheikh Issa wax ci moom ay wax yu baree baree baree baree bari loolu lépp ñu xam ko kër gi itam li nga xam ne moom la suñu mataar wax léegi loolee moo tax boo ko waxee du ñu bett ndax bu fekkee da regg këll ci Serigne Touba ci zahir ak ci baatin foog naa dara du la yëngal lu jamono xat-xat-xat lu mbiri tar-tar-tar lu coow li bari bari ak daal rek ngay mën àndal te loolu mooy li nga xam ne mooy li am ci kër gi kon bu nee lu coow bari bari kenn du leen dégg ñun xam ne li tax yéen kenn du leen dégg te itam nag wàññiwu leen dara ndax Serigne Touba jëtalu kenn ci yéen abul genn kër goo xam ne ci yoon wi def na barke boo xam ne ëpp na barke bi nga xam ne mooy barke bi Sa Diène kon loolu moo tax lii dëgg rek lay seere ndax xam naa yoon bu baax a baax kon loolu moo tax bu ñu fi dikkee tey jii ñu wax wax jure yi nga xam ne wax nañ ko ci Sëñ Abdou Latif loolu dara duñ ci bett ndax ku toll noonu ku ko wuutu mënoo def nen nu dul fees dell ci fànn yëpp kon réew mi tey kiy ñàkk sax ñoom xamuñu ko mais kii di président moom xam na ko ndax jëflante nañ am na foo xam ne fa la ñuy jaar kon ñi ngi leen koy ñi ngi leen koy ñi ngi leen koy jaale ci turam waaye surtout di ko jaal ci turu mbooleem Sénégal gépp toute la nation sénégalaise kenn desul ndax réew mi moo ñàkk di la ñaanal yàlla yan bi woyof ci say loxo di la ñaanal yàlla lépp lu mu semboon lu ca des nga matali ko ba naal sa ay naali bopp loolu ñu koy ñaanal mbooleem jabar gi nga xam ne moom la fi bàyyi di la ñaanal di la ñaan itam nga wéy di ñaanal réew mi ñaan yi nga xamante ne bii moom la daa ñaanal réew mi ak féete réew mi fa nga xam ne foofu la foofee la féete woon réew mi di la xamale kii di président mi ngi jokk kóllëre gi ci yéen fas ko yéene sàmm fas ko yéene téye te loolu foog naa sëñ Matar mii di seen rakk di seen lépp bu nekkee ci seen wet nekk ci wetam foog naa loola seen xel war na caa dal kon mu leen ko ñëblu ci dara fépp fu mu féete woon sëñ bi lépp loo xam ne seqoon ak sëñ bi dana wéy di ko seq ak njaboot gi ñu ngi ziar ñëpp di ziar itam njabootu sëriñ Tuubaa gi nga xam ne ñi ngi fi mu di sëriñ Abo Sidi ak mbooleem ñi nga xam ne gisuma leen te du ñàkk ndax xam naa tey yoonu mu wépp danañ fi dikk suñu àll si la mooy ak si noonu moom itam kon sëñ Abdou Samad loolu mooy kaddu yi ñi ngi jaale di jaal itam suñu njaalum bopp ndax su musaan ñëw dafa ma daan tooñ naan ma soxna Bali sama sanga te daaw ma jox dara ndax diggam ak Serigne Cheikh Awa Balla kon waaye man daaw mu nangu loolu man dama ko daan maame su ma ñëwee ndax sama maama kon ngeen xam ne fii sunu kër la képp koo xam ne bokk nga ci yoon mur kër gi si kër la kon ñu ngi leen di ñaanal yàlla bàyyi leen fi teq seenu fan te musal leen ci lépp musal leen surtout nag ci seytaane ba liggéey bi nga xam ne nekkoon na ci ngeen mën ko àggale na ngeen ko bëggee kon sëriñ bi loolu rek mooy kaddu yi wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakatu jërëjëf waa jërëjëf alhamdulillah wasalaatu wasalaam al rasulullah yéen mbooloo mi sëriñ Sidi nee na mi ngi leen di nuyu ne ci turu kilifaam bii toog nga xam ni mooy sëñ Abdou Latif Diène fii ci nun waa kër gi ñëpp ne mi ngi leen di nuyu ci turam ak ndigalam di sëriñ Cheikh Abdou Lahat ak gouverneur ak préfet ak chef de service yi mandal yëpp ak sëñ Maxtaar moom nag ci kër gi la dëkk di doomi sëriñ bi di xaritam kon sëñ Abdoulahat sëriñ Seex nee na mi ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm di leen ndokkeel di leen masawu ci li nu bokk ndax sëriñ bi ak doxinam daa yéeme woon lool ci ni mu jiite woon njaboot gi waaye daa xajo woon ñëpp ndax bari na ay turandoo yoo xam ni ña ko tudde bokkuñu sax ci yoonu murit waaye ak yaatalam ak mën a maslaam ne lool moo ko mayan ne kon ñu ngi leen di masawu di rafetlu it seeni teewaay ndax bis bii kat nun bis féetu ko kaw ci noonu ndax dañ cee ñàkk liñ gënoon na bëgg nee loolu la yàlla dogal mu gëm ko nangu ko moom ma demit loolu la gëmoon te waajal na ko bu baax bettu ko ci at yi yëpp jitaay bu ngeen bokk dana la ko junju ba tax na man dama mujj di ko daw ndax lam doon wax daa doonul lu ma bëgg a dégg waaye damaa xamoon ne faaw day ñëw kon loolu sëriñ Maxtaar wax ci digganteem ak président daa seet lam ci mën a wax ak lañ war a wax mu xam ko mu wax ko waaye nee na ëpp na foofu fuuf waaye xam na lépp ne moom mii am na lu mu ci xam waaye président nit ku ko bëggoon la ku ko jàpp ku ko jàppale ku ko doyloo mus sa séddale dara bàyyi sëriñ bi ba yàlla dogalee daaw jéeg ci waxtu yu ñu toll tembe sëriñ bi soppiku waaye daa santaane ni lu ci war ci ay taxawaay nañ ma ko defal ndax saa waajur la te maa bëgg mu ne fi ndax réew mi soxla na ko man ci saa bopp daa koo soxla kon lépp luñ xalaat ni buñ ko defee yaram wi woyof ba mu nekkaat ak nun loola man maa ko warlu kon sëriñ Cheikh nee na mi ngi sant président di sant yéen ñi di ay ndawam fi réew mi toll xam nañ ko bu baax ndax ci population bi lañ bokk yilif ay nit. waaye danoo jiital réew mi ci lépp. waaye danoo jiital réew mi ci lépp. jiital sunu borom ci lépp. jiital itam sunu borom ci lépp. lu ñuy wax yàlla day tax. ndax ragalun kenn ku yàlla bind. amul kenn ku nu takk ak buum ci baat. ku dul sëriñ Tuubaa. sëriñ Tuubaa rek lan yaakaar. leen doon it li fi nuy dund. di ko doon kenn mënu ci dara. ne nun dey na nomination kenn kon loolu sëñ Makhtar wax rek digganteem ak président lu yaatu la lu rafet la lu mat la lu matale la sëriñ bi musa xeeb daraam musoo ko sikk musu koo ŋàññi lu mu ko mas a defal jot na ci gërëm ko ñaanal ko kon ci gàttal loolu rek mooy wax ji sëriñ bi ñu ngi lay ñaanal Cheikh Abdou Lahad ndax sax ñëw fii du asaar ndax li ko waral daa bari dafa doyoon ci doomi Serigne Cheikh Mbacke ci yoonu murit nee loolu doy na cër am leneen lu ca dolliku muy diggante borom Daaru Muxti ak maam Cheikh Issa Dieng dollikuwaat ca diggante Serigne Cheikh wa Balla ak bu soxna Baata Bintu mi jur Serigne bi ndax ñoo mbokk bokk Mayib Awa Balla dana wax maam Thierno ak sëñ Modou Mokhtar yéen daal samay sang ngeen waaye da ngeen ma dul sang sang yu toll ni yéen ku ko am dama xeeb mbubb waaye li ngeen ma war a sangale mooy kër wala wata wala fasu naaru góor kon sëriñ bi fii sa kër la ñu ngi lay dalal jàmm di ñaan yàlla tànki dikk yi ak yu dellu yi suñu borom defal la ko yaa ngi mbooloo mi nga àndal ni ko sëriñ Maxtaar waxe ñi ngi beral ak cant commissaire keroog mu jotee ndigal ci ay kilifaam daa daa di yebal mbooloo mu bare bare bare mu takku waaye doyu ca daa taal wotoom ànd ak ñoom fu ñu taxaw mu fekk leen fa ba sëriñ Cheikh mi ci boppam moom ma wax ni ma waxal commissaire ak ñi mu àndal ni leen nañ dem ba suba ñuy daw guddi te suba dañ fi war a dellusi kon kon sëñ Moxtaar yaag seen blaat sant nañ ñëpp waaye commissaire am na ci beral ne mi ngi sant sëñ Maxtaar Jenn naa bëggul sax ku ko sant waaye daa mënta ñàkk yàlla sunu borom mi bind jaam ñi moo wax ci alxuraan ni wa ama bin himati ma rabbika fa hadis xéwal gi la yàlla jox de ko waxtaanee kon sëñ Maxtaar mii def na ci sëriñ bi loo xam ni rëy na lool ci sëriñ bi ak nun ñi mu ko seqal ma nga tàmbalee ci ba yaram bi soppi ko te ñu yóbbu ko hôpital dafa wax ni sëriñ galas yow mi nekk foofu lépp lu ci war ci ab xaalis bu ko laaj kenn nang ma woo dina la ko yónnee bu dee facture bu ñu bind ba noppi nañ ko fay ne loola yëmu ca bi dogalu suñu borom bi ñëwee bañ ko ko waxee la mu nekkoon lépp da koo bàyyi ñëw jëf jëfin woo xam ni lépp luñ soxla ci bis bi rek indi na ko ba ba barab biñ ko doon def daa dem ba xajatu fa loolu nag noo ngi ko ci sant bu baax te xam ni jëfal na ko ku mat a jëfal bi ma waxee ak moom dama ne damay sant sëriñ bi dama koy fay bor waaye bor boobu dama xam ni damaa gis man saa bopp fi may jaar ak i nit léeg-léeg buñ demee ba am lañ bëgg doo leen gis doo leen dégg sëriñ bi dund na ko ci lu bari dund na ko ci ñu bari ci jàppale la taxawu la boo demee ba am la nga bëgg duutu la gis duutu la dégg ne moom mii loolu dalu ko ndax mën naa yem rek ki sëriñ bi wàccee mu ñëw joxe am njaalam daa delluwaal ci ay yitteem kon it kenn du ko sikk nun ay gor lanu ay jullit xaqan lanu te it ci ngëm lañ nu yar ak pas-pas ne loolu leen fas yéene doxee di sant colonel Cheikh Sarr état matoor bu gendarmerie jàmbaar la di doomi sëriñ bi di wëlëreem keroog bi xew-xew bi xewee bi ma ko ko waxee daaw am ab diir waxatut ma ne ko seex danga may dimbali ndax sëriñ bi ca suba la wàccoon mi nga bëgg a guddi te it bu xabaar bi tasee deesu ko mën a saytu bu xabaar bi tasee deesu ko mën a saytu dama bëggoon nga wax kilifa gi la nekkal Touba nga yebal fa ay ndaw ñu saytul la barab ba ba dugg bi ak génn bi lépp jaar ci yoon kon noo ngi koy sant bu baax di sant nag ki nga xam ni mooy ndeyu mbëll gi ñu sañ sax moom Muntaqa li may wax rek mbir mu ne lañ ci mën a wax te war koo wax dañ koy wax lañ ci mënta wax wala waruñu koo wax ñu bañ caa yegg sëriñ Muntaqa kere bi sëriñ bi tëddee da koo fekk ci kër gi ne docteur yi di ñëw di dikk dikkee di ko fekk ci kër gi ba yàgg ñu ni liñ ci war mënatul na ci kër gi faw kon faw day dem hôpital ci lañ ko ko yëgal mu yabal si sëriñ Cheikh Abdou Latif wax ni ko waxal ma docteur Sirog nee ko jëmm jooju ñu fi indi du sëriñ Abdou Latif man sama jëmmi bopp man sëriñ Muntaxa bu ma fi ñëwoon lu ma war a defal na ma ko defal ci jëmm jooj yi ndax jëmmam jooj yi ak sama jëmmi bopp ji ñoom laa yemale kon loolu doy na sëkk ak yee ca dolli ko waat ak yee ca dolli ko waat ci loo xam ni junj doy na borom xel di sant it koo xam ni day kenn ci moom muy sëriñ siidi mu seblaat man damaa xàmmee rek mu jiital li mu jàng alxuraan ma jóge Daaru sëñ Sidi jóge Daaru Salaam. nee sëriñ Sidi jóge Daaru Salaam. bokki ñëw fekk ma de Rahman. di fa yendu di fa fanaan ak sëriñ bi. loola musa dog ba dogalub yàlla bi am. mu taxaw ci nim ci taxawee. kon noo koy sant. di ko seeree sëñ aboo mi toog. ndax moo di ab taawam. kon ci gàttal. dañuy bañ a guddal rek ndax waxtu bi daa xat. ak bañ a wax ak bañ a wax lu juuyoo ak liñ nu wax loo wan waaye kàddu sëriñ bi waxoon lu mat la yu matale la kon jërë ngeen jëf wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala man mu xeebu mii toog de daanaa jàpp ci loxo Macky Sall naan ko fii la ak fii la ñii toog ñëpp xam nañ loolu yi li mu wax ni nun njendeen loolu ab yar ak i tegin ak taalibe dundu nu ko loolu mooy dëgg ñu bari xamuñu ma ñii xam nañ ma bu baax ñenn nañu xamuñu ma loolu moo daa am waaye kenn mësu dégg saa kàddu ci loolu ab yar ak i ak sëriñ bi